wala حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ñu ngi ci téere bii di tabsiratul azhan mu di jàngale ay sew-sew ci xam-xamu balaaxa ñu ngi tolloon ci axwaalul xaali gaaru musnadu ilayhi wax naa la almul bayaan dafay taaralal naxu rek daf lay faram fàcceel naxu gën la ko leeralal rek musnadu ilayhi moo di faayil wala mubtada xaal yi koy gaar sew-sew yi ci nekk loon lay jàng léegi-léegi bokk na ci xaal yi koy gaar xasaf ko léegi-léegi ñu xasaf mubtada gi wala faayil gi lu tax ñu koy xasaf nag moom lay wane ixzifu xasaf ko li abasin ngir moytu font su fekkee wax ji dafa leer nañ ni ba nga xam ne jërul andi musnad ilayhi gi muy faayal gi wala mubtada gi danga koy xasaf ndem boo ko xasafee danañ xam li nga bëgg wax andi ko ak font la ak ceexal la <clears throat> ni ki kuy séntu weer weer wu feeñ jërul mu naan lii mooy weer wi na wa alxilaalu weer waa ngi nii rek alxilaalu weer wi ñëpp xam na weer wi feeñ na waaye jërul mu ne haza alxilaalu lii mooy weer wi déedéet kon su ko defee foofu xasaf gi nga xasaf mubtadaa gi bañ fo moo ko andi maanaam bañ a wax loo xam ne xam nañ ko yaa ngi seen tuweer bu weer wi feeñ neel weer wi rek alxilaalu maanaam haza al xilaalu ndax haza gi boo ko andiwut ci barab boobu ñi ñi xam nañ ne moo fa a nekk su ko defee mubtada gi nem xam nañ ko andi ko font lay doon boobaa dañ ko war a xasab lu tax mu ne xasab ko ndax musnad ilayhi mooy ponk bi gën mag ci wax ja su ko defee boo ko tudd duñu wax ne danga koo ba ndax moom mënul ñàkk ci wax ja waaye dañ naan da ko dañoo nattal ne andi nga ko xasaf ko pourtant andi ko de waaye dañ fay nattal ne andi nga ko waaye da nga koo xasaf ngir leer gim leer kon bu ñuy séntu weer yi gis weer da nga naan alhilaalu muy firi weer baa ngoo aw taxayulan wala njortu an dalil al aqali ne tegtalab xel aqwa moo gën a dëgër ci tegtalab baat léegi-léegi nga xasaf musnad ilay ga niki mubtada ga ngir ne xel xam na ko te xel xam gi mu ko xam doy na moo gën a dëgër waris ñu koy tudd maanaam comme misaal mi mu joxe ko kayfa anta na nga def mu ne qultu alilun saharun daimun wa xuznun tawilun na nga def mu ne wax naa alilun aji feebar la waxut ana alilun saharun daimun foggu sax wa xuznun tawilun ak njàqare gu yàgg waxut ana alilun dama feebar kayfa anta nak nga def mu ne alilun aji feebar xam nañ ne lim bëgg wax mooy ana alilun comme que xam nañ ko tudd ko folay doon ñaareel bi jàpp na ne xel dana xam lim bëgg wax su waxee alilun aji feebar la na nga def mu ne aliirun aji feebar xel dana xam ne aliirun lam ca na moom mooy ana aliirun man aji feebar la kon su ko defee foofu ñaara tax mu dagg mubtada ma mooy bu ko waxee font lay niru ndax nit xam nañ la war a dugg mubtada bi xam nañ ko même tudd kon tudd ko font lay doon ñaareel ba sukkandiku gim sukkandiku ci ne xelam waa ji jàpp na di jàpp goo xam ne jërëtu sax ñu koy tudd tax na moo dagg anaaga ndax tegtalab xel moo gën a dëgër tegtalab baat baat boo ko tuddee bu borom amul xel du ko xam waaye ni borom xel moom jëru sa ngay tudd baat ba xam na la fa war a nekk kon mbir bu leeree ba xel war koo jàpp même boo ko tuddut su boobaa loolu jëru tudd loola waral danañ xasaf mubtada ngir bañ font maanaam tudd ko ak ñàkk ko tudd yëpp nit ñi xam nañ mubtada moom kon su boobaa tudd ko caaxaan lay doon danañ xasaf mubtada it ngir bañ a font waaye ngir jàpp ne tegtalab xel moo gën a teg tegtalab tudd maanaam xel yi jàpp nañ la fa war a nekk xam nañ ko xam goo xam ni soxlaatuñ di ko tudd wabtilaa muxaatibin ak nattu aji wàqante léeg-léegi ñu xasaf mubtada ngir nattu ki ngay wax ak nit dana xasaf mubtada ngir nattu xelam ki muy wax ak fu xel ma toll ñëw naam ak ñëw ga fu mu toll xóotaayu ñëw ga niki nga toog niw nit nga toog nit ñaari góor di ñëw kenn ki ànd nag yow lu yàgg te ku ko xam na ko keneen ki nag àndut yow nga ne ko xaadirun wallaahi warkat la wallaahi a ah, su boobaa moom bu amee xel day xam ne ki yàgg ànd ak yow ngay wax ne warkat la ndax ku musul ànd ak yow kooku mënu ko tuddee warkat war moom ko ànd ak nga koy tuddee su ko defee bu fekkee ñaar dañuy ñëw kenn ki xamee nañ la ko moom xamee na la ko keneen ki xameewul la ko nga ne xaadirun wallaahi warkat la wallaahi foofu moom bu am na xel dana xam ne sa àndandoor bi ngay wax ne warkat la ndax ki nga ànd ak moom nga mën a seedeel war su ko defee foofu jërul ngay tudd naan saaxibi xaadirun sama àndandoor bi warkat la Eh, waa ji su amee xel rek dana xam ne àndoor bi ngay wax wala boog ñaar ñi di ñëw nga ne nga ne wallaahi bil ihsaan day xam ne ki ngay ànd moom ngay wax ne yelloo na lu rafet ndax ko koo àndutut mënul seede ci moom loolu waaye ki ngay ànd moom ngay seede ne ku yelloo lu baax la ma mhm. foofu ixtibaaru mu xaatab war moo waral nga dagg nga dagg mubtada ga tanzimuhu danañ ko dagg ngir màggal ko léeg-léegi ñu xasab mubtada gi ngir réyal ko ba ne dafa mel ni làmmañ sax mënu ko tudd ndax màgg gi màgg maanaam dañ ko jommale tudd suñu làmmañ bi ndax rëy gim rëy nekk li waa ji wax ne ada at lawum axsaabuhum wa دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه نجوم سماء كل من قد كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه أداء ليرال لهم يالين أحسابهم سنين غور ووجوههم أكسني كرم دجى الليل لنمي قدقي حتى نظم بم نوسي الجزع تربى ثاقبه أجبنكو nee na ñooñu may tagg de ngor gañ am ak kanam yu leer ñu am bu guddi jotee ngor gi ak kanam yooyu mooy leeral lëndëm gi ba nga mën a nas ay buum ci per yi mu ne nu samaain ay hum ñoom nujuumu ay biddiwu asamaan lañ mu dagg mubtadaa ga ne nujuumu samaain ay biddiwu asamaan la ngir màggal leen ba jàpp ne làmmañam bi yelloowu tudd ñooñu ndax foor giñ foor nujuumu samaain ay biddiwu asamaan lañ kulla man xadda kawkabun saa yu biddiw faqee rek badaa mu feeñ kawkabun beneen biddiw boo xam ne tawi ilayhi kawaakibuhu biddiw yi danañ ci tàppewu maanaam botu dem botu koste saa yu ponkal demee rek beneen ponkal taxaw palaasam wax gi mu wax ne nujuumu samaain daf leen màggal moo tax tuddu leen waaye li mu bëggoon wax mooy hum nujuumu samaain ñoom ay biddiw yu asamaan lañu taxqiru danañ bañ a tudd musnad ilayhi muy muy mubtada ngir xeeb ki li waajo wax ne qawmun ida stanbaxa al adya fa kalbuhum qaalu li ummihim buuli ala nnaari kooku xasta la qawmun aw nit lañ ida stanbaxa bu bawee al adya fa gan yi kalbuhum seen xaj bu gan ñëwee ba xaj yi bow qaalu wax nañ ñoom gaa ñooñu li ummihim ñeel seen yaay ne ko buuli tuural ndox ala naari safara si maanaam mm, maanaam maanaam ngeen baal mu ci baat bi sawal ci safara si xam nga kooku xas na leen nee dañoo naye naye naye naye ba buñ taalee safara gan ñëw xaj ba boobu ñu xam ne gan ñëw na dañu wax seen yaay ne ko demal tuur ndox ci safara si mu fay ndax bañ a teral gan hum qawmun la waroon wax ñoom ay nit lañ waaye def na ne xeeba tudd sax ci làmmañam moo tax mu ne xawmun rek dagg musnad léegi ak la waa ji wax ne qawmun ida akalu axfaw kalaamahum wastawsaqu min ritaaji lbaabi waddaari qawmun aw nit lañ yoo xam ne ida akalu buñ lekkee axfaw bu nañ kalaamahum seen wax wastawsaqu te ñu ub min ritaaji lbaabi ci mm, euh, buntu kër ga bunt ye wat daari ak kër ga ay nit lañ yoo xam ne ni bu ñuy lekk duñ wax dañuy tëj bunt yi buntu néeg yi ak buntu kër ya ndax bañ ku dugg te buñ tëjee bunt yi duñ wax ndax bañ ku leen yëg na ñu ngay lekk noonu lañ nayee daf leen a xeeba tudd moo tax mu ne xawmun kon dañuy dagg xasaf mubtada ngir leer gim leer nga xam ne tudd ko ay caaxaan lay niru danañ ko xasafit ngir sukkandiku ne xel yi xam nañ ko te comme comme que xel yi xam nañ ko jëru tudd ndax tegtalab xel moo gën a dëgër tegtalab wax ndax amaana nga wax xel man koo bañ a jàpp waaye nag lu xel jàpp moom kooku soxlu sax wax far kon tegtalab xel moo gën a dëgër danañ xasaf mubtada ngir nattu ki ngay wax ak comme misaal mi ci indi danañ ko xasaf ngir màggal ko ba yaakaar ne kii sa làmmiñ bi méritoo tudd ko danañ ko xasaf ngir xeeb ko ba sib ko tudd ci sa làmmiñ aw ajli an yumkina ak ngir mu jàpp ne an tunkira nga weddi mu léeg-léeg nga xasab mubtada gi ngir bu naree métti nga mën a weddi waaye nag dafa am tegtal buy wane ne yow moom ngay wax waaye nag bu la naree tuumal wala mu nar la andil problème mu ne ko waxuma ma la parce que tudduma la maanaam ni ki ñuy tudd Zayd di wax ci moom nga ne faajirun faasiqun kàccoor la rek mu jëlab xet jëmal ci rek nga ne ko ah man mm, waxuma de parce que tudduma la keneen laa doon wax <laughs> kon bëgg bu tàngee nga mën a weddi danay tax nga xasab dara ca wax ja ñëpp xam nañu lii ngay wax waaye bu méttee nga mën a weddi loolu danay waral xasab mubtada faajirun kàccoor la ay zaydun faajirun waaye boo ne woon zeydun faajirun zeydun kàccoor la bu la naree doo mën a wedd waaye boo ne faajirun kàccoor rek la faasiqun saay-saay la mu jël xet nga ne ko du yow laay wax su am lay parce que tuddoo ko woon kon danañu xasaf mustad ilay bi ndax bëgg a weddi aw an tuayyana wala ñu ràññale ko maanaam ñu xam ne moom rek moo mën a def lii su ko defee loolu danay tax ñu xasaf ko ni nga xaaliqun limaa yashaau faailun limaa yurid aji bind la lu ko neex aji def la it lu mu bëgg kooku yàlla rek la yàlla rek mooy bind mooy def lu ko neex kon su ko defee mën nga xasab allahu gi ndax ñëpp xam nañ kan la tudd ko it dafay ñuru foofu sax allahu xaaliqun limaa yashaau mooy bind lépp mën nga koo xasaf ndax ràññeeku gim ràññeeku ci jëf jooju moom rek moo koy def wala ubbil iddia dontu ci oote lahu ñeel ko léegi-léegi nga ne nga xasaf mubtada gi ndax ñëpp xam nañ ne diw mooy def lii waaye nag diw googu du def ak dëgg-dëgg maanaam keneen i danay def lu mel noonu waaye xëy na moom daf ci gën a ràññeeku ni ki wahaabul uluuf nga ne mayekati junne bi ñu ne koo ci nam nga ne asultaan léegi nga wax asultaanu buur bi wahaabul uluuf mooy mayekati junne bi nga ne wahaabul uluuf mooy mayekati junne bi حذف mubtada ga foofu nag du tekki buur bi rek mooy maye junne ndax amaana am na baadoola boo xam ni la muy maye sax mën naa mel ni lay buur bu maye war mu jege ko waaye xëy na na ci buur ba ràññeekoo rek moo tax ñu wooteel ko loolu moom rek mooy mayekati junne bi mais teewul am na ñeneen ñu koy maye kon nit bu ràññeekoo ci dara di am na ñeneen ñu koy def waaye moom ràññeeku na ci mën nga ko bañ nga tudd melo woowu rek xasab mubtada nga nekk wahaabul uluf mayekati junne yi mais tekkul ne moom rek moo koy def bu fekkee ràññeeku yi dëgg-dëgg la moom rek mooy def loolu nekk xaaliqun ni maa yashaa aji bind lu ko neex kooku mën nga ko bañ a tudd yu mel nii léegi-léegi ñu xasab mubtada ndax yeneen yu mel nii maanaam ni ki dikk ci tagg wala ngàññ neema neema rajulu zaydun ay huwa moom zaydun nga xasab huwa gi dégg nga mm, léegi-léegi jotaay ba xat nga am naqar ba mënoo tudd sax mubtada nga tudd xabar ba rek nga nga xasab mubtada ga tudd xabar ba rek am ca loolu dana koy waral لكن واجه قالت وقد رأت اصفراري من به وتنهدت فأجبتها المتنهد قالت وحنا ممدوسي وقد رأت تجسنا اصفراري سما زونجي ماغي jeex sama yaram bi soppeeku ba zone mu ne man bii ana ku ko def teg lii ana ku nekk ci waa ji ba teg ko lii ndaw si nga xam ne moom laa bëgg ba mel nii moo jàkkaarloo man naan ana ku ko def lii. mu bindi ajjat fa ajabtuha ma tontu ko ne ko almutanahidu kay bindi moo ma def li moo nekk ci man ba def ma ni fa ajabtuha huwa almutanahidu dafa dellu ci man gi nag man dañ koo góoral waaye ki mu wax jigéen la moom kama def lii almutanahidu mu aji bind ji gis nga mu dagg huwa gi ndax xat gi nekk ci moom ak xol bu tàng bi nga xam ni mënu sa wax ju yegg loolu dana koy waral dana waral léeg-léeg ñu dagg mubtada ga ndax xat gi nga xat bu fekkee da ngay way te bu andee mubtada gi way gi du baax dana waral nga dagg mubtada gi bu fekkee da ngay sajon te bu andee mubtada gi sajon bi du rafet bëgg nga baat bokk fu ñu daanale nga xasab mubtada gi dégg boo bëggee peese hmm, bu andee mubtada gi peese du baax wala daanel bi du baax yooyu yëpp mën nga xasab mubtada gi ci wàllu way dégg eh, naka noonu su fekkee da nga bañ ñi teew xam man nga ko xasaf man nga xasaf mubtada ga ndax bañ ñi teew xam ki ngay wax nga indi xabar ba rek dagg mubtada gi parce que bëggoon nit ñi comprendre yow ki ngay wax kan la wala boog occasion xew nga ragal. boo fa naree nekk wax ji di yàggu yàgg sa occasion bi raw la ni ki rëbb ba génn rek nga ne xazaal kéwal ga juru nga naan xaza xazaal kéwal gaa ngi nii neel xazaal kéwal ga rek olof sax naa da koy wax bu ñuy séntu dara bu mu génn dañ naan ma nga nangam ga boo fa naree nekk naan xaza xazaal mën na mu raw la moo tax bu génn rek nga ne xazaal kéwal ga rek ñëpp topp ko ndax bañ occasion bi raw loolu danay waral ñu dagg mubtada kamaaloo sumia ni ki buñ ko déggee maanaam bu fekkee masal la léeb la dañoo gis arab yi dégg euh, doon ko def lépp dagg mubtada gi ñu ne buñ ñëwee dañuy dagg mubtada gi rek dégg euh, léeb nag mooy loo xam ne ni ab xew-xew la woon am wax juñ ci wax lu niroog xew-xew boobu rek ñu askanee ko wax jooju ni ki ramyatun min xeyri raamin benn waaye bu jëm fet rek daal di jëm lam doon jëm te nekkul jëm katu fett ñu ne ramyatun lii de ak jëm la min xeyri raamin bu jugee ci koo xam ne du sànnikat jam na gaa waaye du sànnikat léegi képp koo xam ni am na ndam ci dara te loolu du mbiram dañ koy tuddee ramyatun min xeyri raamin mhm. koo xam ne ni mënul wax wax ju jub tey bu waxee wax ju jub mën nga ko def loolu képp koo xam ne daal def na dara tëddu mbiram mën nañoo wax ramyatun min xeyri raamin foofu dañoo dagg mubtadaa ga waaye masal la léeb ab léeb kenn du ñëw di ko soppi dégg su fekkee euh, bëggoo ñi teew xam mën ngaa dagg mubtadaa ga nga ñëw rek ne xaadir aji teew la fekk da nga am ñoo xam ni ne bëgguñu comprendre ñu xam kan nga bëgg wax ne moo teew nga ne xaadir teew na ndax bëggoon na buñen ñenn loolu it hmm, mën naa nekk mën naa tax nga dagg mubtada ko kon wax na anam yi nga xamee ne ci ñi ci lañuy daggee mubtada mu ngi ñëw ci nag tudd gi ñuy tudd mubtada lu koy waral mu uskura na nga mubtada li kaw nii ngir nekk gim nekk al asla di cosaan al mujarrada bu aji rafle ci ay mbir yu tax ñu war koo dagg nekk gim nekk cosaan rek du tax ñu tudd ko loolu loolu du lay pour ñu tudd ko waaye su fekkee amul lenn lu tax ñu war ko xasaf comme que cosaan danga koy tudd mhm. su fekkee nag am na lu tax ñu war koo xasaf li wax ja leer naññ wala yu demee noonu man nga ko dagg comme nañ ko waxee ci gannaaw su fekkee ñaari sabab dañ cee daje ah xool ba la gënal nga tudd nga nga nga jëfandikoo ko niki am na kuy teew te boo nee xaadir waa ji nga xam ne ba moom nga bëgg mu xam kay teew du comprendre parce que moom boroom xel mu dof la. foo nga tudd turu pour mu door xam te am na keneen ku toog koo xam ne bëggoo mu xam ki teew xam nga comme ko bëggoo xam mu xam ki teew da ngay wax ne aji teew la rek waaye boo tuddee bi mu xam ko keneen ki boo tudd tur bi du xam te moom bëgg nga mu xam yaay xool ñaar yooyu bu la ci gënal su fekkee li gën a am solo ci mooy waa ji xam ku teew tuddal turwa wa nga ne zaydun xaadirun ku teew la su ko defee di dee waa ji nga bañoon mu xam dana xam. waaye lii moo la ëpp solo waa ci xam ki teew kan la su fekkee nag lii la ëpp solo mooy ki teew bu xam kan la di la keneen ki daf koy euh, umpu ki nga bëgg mu xam nga ne xaadir rek su ko defee moom du xam kan moo waaye ki nga bëgg mu xam it du xam mais yow kële ñàkk xam moo la ëpp hmm, ki nga bëggul mu xam su ko defee kon ñaari sew-sew buñ dajee ci jotaay bi da xool ban moo la ci gën a kon moo ci gën a lëng kon su fekkee amul benn sabab bu tax ñu war a dagg mubtada ga musnad ilay gi amut benn sabab bu tax ñu war koo dagg te mooy cosaan tudd ko aw ixtiyaatan wala nga tudd ko ngir gën a wóorlu ngir gën a wóorlu parce que boo ko daggee amaana ka ngay wax ak xelam du mën a jëriñ du mën a comprendre kan ngay wax dégg nga kon tudd ko mooy gën a wóor su fekkee daal boo daggee mubtada ga wax jaman naa bañ a leer ndax pour comprendre kan nga bëgg a wax dana dana laaj xalaat bu baax wala boog sax laajut xalaat bu baax sax wax ji leer na sax waaye nekk ñi ngay wax ak ñoo gàtt xel te bëgg nga ñu xam su boobaa da ngay tudd mubtada moo gën a wër niki ñaari nit buñ teewoon dégg nga eh, am ku teew sa jotaay ñaari nit di ñëw mu rafet njortu ci kenn ki bu baax a baax xam nga boo nekkoon xasaas workat la wurujkat la moom xelam war naa jël ne kam rafet njort nga ko bëgg wax ne wurit kat la ndax ñaara ngi teew ta kenn ki la rafet njort ci moom nga ne ko xashaas warkat la mën naa sukkandiku ci rafet njort gi mu njort ci waa ji ne moom nga ko bëgg wax ne ko yaa ngi rafet njort ci moom waaye warkat la mais su fekkee xelam yëggul foofu amul xel mu yaatu noonu boo ne ko xashaas du xam kan ngay wax ci ñaar ñi ñëw danga naan ko saaxibu ko xachaas sa àndandoor bi warkat la mais même boo waxutoon sa àndandoor bi war naa xam ne àndandooram bi la parce que àndandooram bi mu rafet njortu ah, kooku euh, moom nga ko bëgg a na ko warkat la waaye ki nga xam ne sequt moom dara xamal ko ne ko warkat la jëriñut ko dara su ko defee foofu mën na sukkandiku ci ànd gam doon ànd ak waa ji ji ñëw ak rafet njortu gi mu rafet njortu ci moom ba nga xam ko. boo nee xasaas war naa sukkandiku ci loolu xam kan nga bëgg wax ne mooy warkat bi mais su fekkee xel mi dafa gàtt ba mën mënu koo jëli foo nga tudd mubtada gi ne ko saaxibu ko xasaas kon ngir wax ji gën a xóor pour ñu xam li nga bëgg a wax dana tax nga tudd mubtada gi ndax boo ko daggee ñi ngay wax ak duñ xam aw tanabbuhan wala ak yeete ara gaar naa la xabaawatin ci ak ndof léeg-léegi ñu tudd mubtada gi pour ware ne ka ñuy wax ak ku dox la du dégg lu mooy luñ tudd léegi nga fekk jaamukatu xiram nga ne ko assanamu laa tasarrufa lahu xiram mënul def dara mënul soppandiku <clears throat> xam nga jaamukatu xiram bi boo ko fekkee muy jaamu xiram boo ko laa tasarrufa lahu dana xam ne bu dee am na xel dafa dana xam ne xiram bi nga koy wax laa tasarrufa lahu mënul dara moom war naa xam ne xiram bi nga koy wax mais boo bëggee wane ne ku dof la nag mën nga ne ko assanamu laa tasarrufa lahu xelam amul xel nga tudd ko ngay war ne kii loo tudd xamu ko ab dof la awit talazuz wala ngir bànneexu léeg-léeg bi ngir bànneexu ko nga am sop soppi boo xam ne yéen ñëpp yéen ngi koy teeru mu ñëw boo ne xaadirun teew na nit ñi dinañ xam ne moom moom ngay wax teew na parce que moom la ñëpp di xaar boo ne xaadir ñëpp dañuy xam ne soppe bañ doon xaar moo teew waaye nag waxuloo nag ne alxabibu xaadirun soppe bi teew na loolu danga koy bànneexoo am la waajo xam laylaaya min kunna am laylaaya min albashar laylaaya laylaa min kunna ci yéen la bokk yéen kéwél yi ndax rafet gi mu rafet am laylaa wala min albashar wala laylaa ci mbindeef yi bokk su ko gis nga ne laylaa ko ngir bànneexu ko bànneexoo tur moo tax mu tudd ko ñaari yoon ndax bu ñaareel moon na wax am hiya tabarrukan danañ ko tudd ngir barkeloo ko danañ tudd mubtada ngir barkeloo ko soo amee loo xam ne ñëpp xam nañ ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mën ngaa wax ne nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam qaayilun dalika al qawlu moo wax jooju wala rasulullahi qaayilun dalika al qawlu ngir barkelu ci turam dana tax nga ne Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam qaa'ilun zalika al qawl tudd gi nga tudd tur woowu barkeelu la koy waral léeg-léeg nga tudd mubtadaa gi ngir barkeelu ci moom bastu kalaamihi ak tàllal wax ji kaza naka noonu léeg-léeg nga tudd mubtadaa ngir bëgg a guddal sa wax ne ki ba yàlla wax ak Moussa yonent yàlla Moussa alayhi salaam wa maa tilka bi yaminika yaa Moussa lan moo nekk sa sa ndeyjoor moo naa wax asaaye sama yet bi rek mais dafa bëgg wax ci gudd ndax booy wax ak soppe euh, da ngay bëgg guddal wax doo bëgg mu jeex guddal ak waxtaan ak nit day tekk soppi ko sopp ko moo tax ko xii asaaya sama yet la mënoon na asaaya sama yet la rek mu ne ko xii asaaya xemul foofu dama tawakkaw alayha dama si sukkandiku mu ne ba sonn di ci noppalu ko sàmm yi dañuy def loolu ushu bi ala xanami ma ci gësamal sama gàtt yi waliye fiha ma aari yeneen soxla xam nga ubbi na beneen bunt sax buñ ko laajee leneen naa yeneen soxla loolu beneen bunt waxtaan la kon tudd na mubtada gi ngir bëgg guddal wax ci waaye moo na sama yet bi rek mu jeex soppi dañuy guddal wax ak moom kon bëgg guddal wax danay tax ñu tudd mubtada bi wane nag kii dof la boo tudd mubtada bi du xam danay tax ñu tudd ko bànneexu ci tur bi danay tax ñu tudd ko ci danay tax ñu tudd ko tudd ko dafa gën a wóor ngir ñu xam li nga bëgg wax danay tax ñu tudd ko bëgg dégg nga ngir ne mooy cosaan te amul lenn lu tax ñu war ko xasab dana tax ñu tudd ko wa misloo comme loolu al idaaxu leeral wa taqriiru ak dëgëral léeg-léeg ñu tudd mubtada ngir leeral ko dëgëral ko ci xelu nit ñi comme li yàlla wax ne ulaayika ala hudan min rabbihim ñooñu de ñoo nekk ci njub bu jugee seen borom ulaayika ñooñu de gaay ala hudan min rabbihim ñoo nekk ci njub wa ulaayika ñooñu de gaay hum ñoom al daf laa bëgg a leeral dëgëral sa xel mi ni nga xamee ne ñii rek ñoo jagoo njub ci àddina naka noonu ñoom ñooy jagoo texe ci àllaaxira ñoom kese looloo tax mu tudd mubtada pour wàll ne ñoom ñoo jagoo njub ñoom rek ñoo jub te ñoom rek ñoo texe it nga bëgg leeral ne ñii ñoom rek ñoo jub ñoom ñoom rek ñoo texe moo tax mu tudd leen pour leeralal la seen ak njub ak seen ak texe ñi nga xam ñoo jagoo njub ci àddina naka noonu la leeree it dëgër xel na leer te dëgër sa xel mi nañoo jegoo texe ci àllaaxira wala wa misluhu comme loolu la dañ tudd mubtada lil idaax ngir leer wa taqrir ak dëgëral wa hakaza naka ni at-ta'zimu màggal danañ tudd gi ngir màggal su fekkee bu foor la ni ki amirul muminina buuru julli xaadirun aji teew la bu ko ñëpp doon teeru mu ñëw mën ngaa wane xaadirun aji la rek waaye comme que tur bi tur bu màgg la mën ngaa wax amirul mu'minin ngir màggal ko ci la xam nañ ko mais tudd gi nga tudd tanzimul la màggal la wa taxqiir danañ tudd mubtada ngir xeeb ko ni ki bu dee tur wu bon ngir ab sàcc buñ rëbb di ko andi ñëpp xam nañ ne sàcc bi jàpp nañ ko mu ngi ñëw bu mu ñëw beeg si nga ne assaariqu xaadirun sàcc bi teew na ah kooku da nga koo bëgg a toroxal moo tax nga tudd tur wa wala alisu xaadirun bandi bi teew na te fekk moom la doon ñëpp di xaar ndax musiba gam def ñu ngi koy andi ñëpp di ko xaar comme ñëwee nga ne asaariqu sàcc bi xaadirun aji teew la kooku kooku ak toroxal la kon danañu tudd moom turaa ngir ngir toroxal dégg kazaalika naka naka noonu li taxwiili ngir tiital dañuy tudd mubtalaa bi ngir tiital tiitalaate ni ki ashurtiyu police bi xaadirun aji teew la wala alqaadi attekat bi xaadirun aji teew la tribunal ñëpp ngi toog di xaar attekat bi bu ñëwee boo ne xaadir teew na rek nit ñi danañ xam ne attekat bi la parce que moom la doon ñëpp waaye boo ne alxaaj alqaadi àttekat bi wala assurti yu police bi te fekk am na xew bu amoon ñëpp di xaar police bi boo ne xaadir aji teew rek xam nañ ne moom waaye boone ne assurti yu nag da nga bëgg tiital nit ñi nit ñi jàq wala sultaanul baladi buuru dëkk bi xaadirun aji teew la pour ñëpp defaraat seen toogaay looloo tax kon danañ ko tudd mubtara bi ngir tiital mhm. yooyu ay taalibe yu jàng seen ustaas mm, ñëw te fekk ñemewuñu ustaas bu ñu daal ustaasu ustaas bi teew na pour ñëpp defaraat seen toogaay wa tashwiq danañu tudd mubtaraa gi ngir nammuloo niki alladi xaarat albariyatu fihi xayawaanun mustaxdasun min jamaadin alladi li nga xam ne xaarat gërëm na albariyatu mindeefi fii ci moom xayawaanun mooy xayawaan mustaxdasun buñ sos min jamaadin ci jamaat tudd gi nga tudd mubtadaa gi foofu surtout nga def ko ismu mawsul nga xam ne danga ciy teg leneen loo xam ne day tax nit ñi namm li ngay wax li li mu def yëpp gërëm ñëpp dañuy namm déglu loolu lan la nga ne mooy ba xayawaan buñ sosee ci jamaat lu lu woy te mooy doomu aadama suuf la jógee te dund day dund waaye ci lu woy la jógee li tax nga tudd mubtada gi foofu da nga see bëgg a toxal loo xam ne dana nam loo nit ñi li ngay wax loolu dana tax ñu tudd mubtada maa islaahi nazmin ànd ak defar way ni ki li waajo wax allah wa xassa muhammadan bi fadaili maa yustataau li baadiha ixsaau yàlla jagleel na muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay ngëneel yoo xam ne lenn li sax mënuñ koo kont kon allahu da nga ko tudd pour ne boo ko tuddutoon way yu du baax kon léeg-léegi danañ tudd mubtada ngir defar waay aw taabudin wala jaamoo ko yàlla ni ko allahu akbar mënoo wa arrahmaanu akbar arrahimu akbar allahu rek nga mën a wax lu tax ñu tudd mubtada gi foofu ndax ne loolu jaamu yàlla dañ ko tudd ngir jaamoo ko yàlla ndax noonu la rotee mën a wax beneen baar bu dul loolu aw taabudin wala ak jaamu yàlla waqa xew na kon su ko defee anam yooyu mooy anam yi nga xam ne daañu ci tudd mubtada ak anam yi nga xam ne daañu ci xasaf mubtada in uridu il islam mastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa